jamono Cheikh Sidi Moukhtar juróom-ñaari juróom-ñetti yoo xam ni defuma dara lu ko umb kon fii mën naa fexe kon sëriñ bi ñoo ngi leen nuyu te di la siyaar ci bisub sa wajur bu tedd bi te di la sant tam ci cër bi nga jox fii ndax li sëriñ Maamun wax sa mbaax la rek waaye bu sëriñ Maamun waxee ba dem ñun mën nañoo wax ne waxam mën nañoo yóbbaale sëriñ Aziz Ahmed bi ci sama wet bu waxee ba daane wala bu waxoon sama place mën naa wax ni yóbbaale na jëw jëwriñ yi fi jël bi yëpp itam daanaka mën naa wax ni yóbbaale mënoon naa jàpp ci li ñu wax ñu yóbbaale waaye bis bii bis la boo xam ne ku ci yàlla boole da war a sant yàlla ndax seet Abdou Khadir ndax koo xam ne bi nga ganee àdduna kala doon waxi ca sëriñ bi sëriñ bi daa xam la ne buy dem ak buy dëpp yépp ku mu dajal ñu jéggal la te kuy jaamu yàlla ñu jéggal la nga bëgg kon ñun ñi ñëw fii ñëpp ak njéggal lañ bëgg te ku gis koo xam ne mas gis maam Thierno ba muy dem wala ba dëpp jëmbul ñu am nañu ne ci jitaay bi ñoo xam ne mas nañoo gisee mas a gis te loolu képp ku ko def ñu jéggal te kuy jaamu yàlla wala ngay góorgóorlu wala ngay bàyyi bànneex wala ngay def dara li nga ci jublu mooy ñu jéggal kon nag bis bii mën nañoo wax ni bisub njëggal la te sëriñ Abdou làmboo woon na yoo xam ne dañ ko war a jàngat ci bis bii bu ñëwee waaye dajaloo gi rek ñu indi ndox mi ñu naan saafoon te siyaare sëriñ bi dem déedéet dañoo war a xool sëriñ Abdou Khadir yan jikko la yoroon ñu jéema dox ci jikkoom yooyu jikkoom ya nag boobu doon lim tey fi ngay yenn mbaa nga fanaan fi ji jikko ji ca naa a am solo jiitu ca muy dëggu te suñ jamono ji téeméeri nit yoo wàññi juróom-ñett fukk yu dëggu te sëriñ Abdou Khadir nit ku dëggu la woon koo xam ne du wax mukk lu nekkul ci moom du jëf mukk lu lu nekkul ci moom itam lu muy wax lu nekk yàlla suñu borom la koy seere lu mu jëf lu nekk itam yàlla suñu borom la koy seere kon jikko jooju war nañ koo roy ci moom beneen jikko ba ci des mooy di dimbalee nag xool ñi nga xam ne da nga leen tane nga di leen dimbali ñëpp xamoon na ko ci sëriñ kon jikko jooju yaakaar naa ku ñëw ci bis bii war nga koo bàyyi xel taroy ko ci moom beneen jikko ba ca def itam mooy bëgg ak bokk nga xam ni yow mii tey nuru nga ko ko ba àdduna sépp xam ko bëgg ak bokk toppatoo bokk yi lu ñu nekk mu xam ko ku ci nekk ci jafe-jafe mu ne mu bokk kook yow ku dina ci bànneex itam mu bokk kook yow mën naa cee joxe firnde bu gàtt man nii sama wayjur sëñ Abdoulaye Baara sëñ Abdou Khadir daan def ajjuma june mu woo ko dikk yendoog moom wax ni man su ma nammee sëñ Baara damay woo sëñ Abdou Lahad su ma yendoog moom ba ngoon day mel ni maa ngi gis sëñ Baara kon loolu firnde la ci ni mu doon doxee ak bokk yi te tey jii defe naa kër yu bari wala ci jitaay bii nu toog képp mën nga fi woo jéeli yu bari ñu wuy la yoo xam ne ci ay këri Serigne Touba lañ génne wala ay këri magi Serigne Touba wala rakki Serigne Touba te loolu lépp jikkoom moo ko komee ndax dama koy faral di wax toujours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu tedd yëpp yàlla tëgg ko ci dara lu jikko tëgg ko ci dëkk Màkka tëgg ko ci mën a julli tëgg ko ci mën a woor tëgg ko ci xare Badar mbaa ci lenn ci ci jikko la ko tagg ne ko wa ni ko wa ni ko wa innaka la ala xuluqin azim sëñ Basiru nag yàlla dimbali na la ba jikko jooju jëlee ko ko ci sëñ Abdou Xaalis muy jikko ju rafet ndax ñun ñii fi toog ñëpp. mag moom day am foo xam ne nit day am foo xam ne bu fa tolloo kum ni yaama yilif wala kum jox kilifteef da koo neex ndax boo amee li ñëpp am man li ñëpp am koo ni yaama yilif da laa neex tey nag jikko la ñuy nit waaye suñu jamono ji deesu yilifa nit ndomb ak tànk deesu yilifa nit alal deesu yilifa nit ay at am na nit ñoo xam ne jikkoo rek moo leen mën a yilif leen mun leen a yilif te defe naa ku xool ci jitaay bii